na ngeen de naka suba si dama mer ba bugg a dee suma xol bi nu mu tàngee sax ngeen xamul jooy rek moo ma dese mag bu ni man fa fajaru njëlu pare lu ma war a def yëpp pour war a dem liggéey ñëw si train bi jigéen bu waane bile di jaay ticket dem offer ma the wrong ticket you know su ngeen di liggéey bala ngeen di ofonit dara xam leen li ngeen di ofonit I'm so angry I feel like crying but I can't do nothing about it bëgguma di yuuxu si jigéen bi you know anything but dellu naa ba si moom ma ne ko ne next time please na xam nu muy offer nit ñi te mu laajte nit ñi moom fii lay liggéey si Strange Zone bi dafa mel ni xamut lu muy def ok damay dem liggéey euh, Cocody lay dem liggéey beneen dëkk bu nekk gannaaw Edinburgh fu ma dëkk nii so léegi um, ticket bi train bi su ma jëndee normal ticket bi dafay nekk 15 pound but su ma jëndee cheaper ticket bi dafay nekk 9 9.99 like 10 pound léegi ma ñëw rek ne ko can I have a ticket return ticket to Cocody rek mu ne ma ne you can go at 5 past 9 one is cheaper is 9.99 ma ne ko of course ndekete wu boobu noonu alaawuñ cheap ticket bi ah smart ay laa si boobu noonu alaawuñ ci ticket bi boobu noonu ma dem ba foofu noonu train bi ñëw ma dem ba foofu noonu ñu ne ma ne du ma dugg si train bi du ma du ma romb barrière bi fu war a wane ticket bi noonu romb ñu ne du ma fa because ticket boobu noonu ma am pour xa paas xaw ma 35 paas xaw ma si laa war a dem soo dama am pour taxaw fii nii late for nothing te man dama war a egg si liggéey bi balaa 10 o'clock te léegi dama fay egg after 10 damay egg ko koo di after 10 13 past 10 laa egg ko di bala ma egg si liggéeykaay bi yàlla xam 20 past or war if I'm lucky that is jigéen bi daf ma def ma late for work for nothing léegi manager bi dina fa ne sax borom liggéey bi na fa man dama dama lazy pour get up wala man dama dama dama damay just make up that story or what ah te may out on time get ready on time def yëpp ñëw ba fii on time jigéen bi dem waane offer ma wrong ticket bi ah it's like xamut lu muy def xamut liggéeyam bi wala dafa faraw because daf ma wax clearly ne ma du you want to go for five past nine one hundred percent lii la ma wax am léegi bu ma delloo ba si moom lu mu may wax oh sorry oh I'm sorry balaa ngeen di offer nit dara si liggéeykaay bi xam leen li ngeen di offer lu ngeen xamul ngeen laajte ko ah I'm so mad dama war a ñëw on time ba pare taxaw fii nii fo nothing late for work for nothing te liggéey bi dañ maa fay ten pound an hour dama fa war nekk jos balaa ten ma start ak ten léegi su ma fa eggee half past almost half ten naka lañ may faye ten pound bi from ten o'clock dama feel like aduna bi léegi nit ñi duñ dee keeful dalee ko si man dalee ko si man dalee ko si man dalee ko si duñ dee keeful dañuy jomp rek def stuff jomp rek you know stuff da loo xam ne xamuñ si dara loo xam ne xamuñ si dara au au au taking suñ time because jigéen bi xëy na sax xam na ko parce que fii lay liggéey te fooguma ne ku xees la xëy na xam na ne train boobu noonu moo war a dugg half past la waaye dafa waane ba ba jaxase ko mistake ko ak ak five past one bi five past nine one bi it wasn't five past nine anyway it was it was seven nine dafa mis dafa faraw ba ne ma ne it's seven past can you go with the uh, five past nine one is cheaper it's five pound different who wouldn't want to job probably five pound different even though jigéen bi daf ma dee loo ticket money waaye du ma dee delloo yëpp 10 pound rek la ma dee jox so des na si man su ma fayee lu ëpp 10 pound maa koy yëg su ma fayee 15 pound one bi but I rather fight 15 pound one bi and be there on time because promise naa ko ne du ma late bugguma promise ni dara ba pare ma fail my promise I hate that so much I'm so angry nit ku ñëw suba teel ne la jaay ma train ticket ku ko di xamuloo dafay dem liggéey xamuloo dara nga dem faraw dem jox ko dara ticket ah ba pare ma dem gars yi nangu ñaan naa leen ba sonn ñu ne ma noo doo romb ticket bi nii ma ne leen su ma demee dinaa fay si biir train bi suñ ma laajte su góor bu dee laajte ticket ñëwee ma fay extrait mu ne ma noo ma ne ko waaye lii is not fair yéen a ma jaay ticket bi yéen a ma wax ne five past nine lay dem léegi ma ñëw fii ngeen ne ma half past nine thirty five past nine laa war a dem te dafay jël thirty five minutes pour ma egg foofu noonu léegi su ma fi jógee thirty five thirty five past nine ban time laay egg foofu noonu ah? mu ne ma da nga egg foofu noonu thirteen ma ne ko man kay bëgg egg foofu noonu thirteen past ten ah I'm so angry. but I'm not gonna let this rule in my morning because ma demee dama war a living job bu may def dama war a they need happy person yeah they don't a hopeless <laughs> angry person dama click Facebook live bi pour ngeen xam ne su ngeen ay liggéey def leen lu ngeen xam su ngeen xamul ngeen laajte. wala ngeen take seen time ngeen give the correct information to people because this is not fair especially soo nekkee si travel place ah nit ñi dañooy travel ñëw bi boobu nga leen di jox the wrong details and the wrong tickets and the wrong details from nowhere mu offer ma ko man laajuma ko sax man dama foog ne 15 pound lay fay because last time ma dem liggéey 15 pound bi laa fay who cares you know so jigéen bi dafa ma dee fay 10 pound an hour pour dafa ma fii noo ma liggéey yëpp ay 8 pound 50 la 10 pound an hour liggéey is not that bad so I don't care about the 15 pound ticket yeah mu dem jompa brain dem dem na ma you wanna go with the 5 past 9 one it's 9.99 ma ne ko ah of course ndekete huu boobu noonu duñ nangu ma dugg fa xaw ma dafa dof xaw ma dafa xamul lu mu de xaw ma dafa waane xaw ma dafa confuse ah I'm so angry but this is life you know certain things daf day happen mënuñ si dara man moom su ma dee liggéey dama dee try du ma dee bëgg a di liggéey di léet sa liggéey boo ne yaa ngi ko commencé xees ngay léet léet dañ lay dàq who the hell are you ba pare jos liggéey bi dafa nekk loo xam ne man rek la ak borom liggéey bi it's not like a company bu mag wax ne ñeneen ñaa ngi fa so borom liggéey bi dafa may dem set up place bi di ma xaar bu ma ñëw waxoon na ma ne su ma fa nekkee balaa wala jos ten moom dafa am fu muy dem te léegi damay léet I hope ne du moom su léetee itam du nekk problème bi nga yéen i soo defee nit léet kenn kooku mun naa def keneen léet because of moom mu ngi léet you see so it's not good you know nuñ dee defee nit yi late about stuff and just mess up people day like nothing is happening dama foog ne liggéeykaay yi li si bëri léegi àdduna si yëpp la duñ dee jël seen liggéey yi serious you know ngay dem foofu noonu ñu lay saaf anyhow ak def anyhow ak a just waxayo anyhow di chat di laaf di ngee non nit ñi this is important you know ñi they need whatever the hell you're doing people need it and this is important you cannot just do things anyhow so hopefully nag bu ma nekk too late eyelash bi de ah eyelash yi am the worst person <laughs> bi but sama manager bi tontoogut waxut dara so maa ngi tiit léegi bu bëgg a dee waxut dara xam naa dafa mer moo tax waxut dara mu ngi ne teg waaw mu ne teg waxut dara man nag noo bañee nit ma def la dara nii wala dara xew nii nga ne teg soo léegi mu ngi ne teg tontu naa ko expliqué ko waxaa mu ngi ne teg so I don't know what's maa ngi dem so mu ngi ne teg na yereng na yereng di jiw xaram yereng soo yeex dugg naa si train bi maa ngi nii di dem train bi am na nit waaye bisul torop comme last time xaw ma jom di ma ne may fa jaru mi ko bala maa dem waaye mu tax sama mi ko bi kenn xamul mu nuru I think it's not bad waaye eyelash xëy mën ak eyelash yi la fu ma jëm ak ñoom fii dafa nekk di jóg ci koñ bi soo ma doo ko notice soo yee suma suba gi tey lii la waaye xam man moom kenn du dee stress man suma stress two minutes fàtte naa ko <laughs> waaye jigéen bi sax moom mer na woon nga xam ne te def ma miss ma train bi ñu ko naan right now maa ngi wàcc train bi it's crazy anyway maa ngi dem ak train bi léegi so su ma panee jëmi waxu dara so maa ngi tiit bu gare waxu dara mu ngi waxu dara so xaw ma nag su ma demee luy xew waxu dara explain naa naa ko the situation why I waxu dara mu ngi ne teg bu leen fàtte si ngeen fi jënd këpp rek sac bu gàtt bi tamit naa ko solaar suur oo xool leen pëleen bële wuy yiw faa pëleen bu ne na leen seen ngeen ko raw nañu si boori airport ah, yaa nga ne la moo gisee pëleen yi dem Gambia la sama xel di daj bi nam Gambia mu ngi mel ni dem nga fa fukki at te bu yàggul laa fa jógee de Gambia Gambien moo neex si man man de barki yàlla su neexutoon sama doom yi fii jëggal naa fii bu yàgg fii fa naqadi seen lekk yi naqadi I know you be like lekk rek moo lay tax a dem Gambia of course Gambia am na lekk am na happiness commencé léegi di def ay euh, no xam naa di ngeen réer yi waaye li dama ko waxoon a waaye léegi ne dinaa ko def sama Facebook bi sa time boobu te mosuma koo def am naa sama euh, followers sénégalais yoo xam ne dañ ma dee laajte bu ma def English lesson hi <laughs> I know you be like what the hell you can't even speak English yourself I know what dama bëgg a def English lesson pour suma followers sénégalais yi ok so get leen ready ah get leen ready dina indi English lesson bi on on YouTube du nekk Facebook de YouTube so am naa wax yu ma njëkk a bugg ba pare wax yu may njëkk a commencé mooy comme ça nga ne hi how are you how are you doing my name is Pap this kind of thing so dinaa commencé noonu. waaye dama koy bind tamit si vidéo bi ngeen xam lu may wax comme ça su may wax hi how are you doing ma bind hi how are you doing ay <laughs> man nit ñi bëriwuñ si train waaye xaaral ma reen xam naa sama flow nay wax ne what the hell amee yow kay nga dégg anglais bay jàngal nit ñi ok dégguma anglais lay dégg anglais dégg anglais mën naa see wax suma soxla rek di xam lu may wax ok dama koy def pour fon rek you waaye di ngeen si jàng tuuti ah Pape believe me di si jàng tuuti so loolu laa bëgg dem def and then after dinaa commencé di def like a little conversation you know like noo noo a waxtaanee ak si anglais waxtaan yi ndaw yi you know yëpp dinaa ko def slowly slowly you know but yeah xool leen bridge bi laa dee wax nit ñi ñu jomp bridge bi laa dee yónni nit ñi ñu jomp Fort Bridge Fort Bridge a ngi nii good morning good morning Kini is it Kini or Kani which one is it Kini or Kani okay Kini for A Kani for B I think Kini and Kani is all the same but people just pronounce it the wrong I mean differently I So if it's Kine, you have to put A, and if it's Kani, you have to put So I know how to pronounce your name. so yeah, man si train bi like I said suma ma ne yabi huyuhut wax naa ko dama late because of the the the explain naa situation bi waaye huyuhut ku dem sax gëmut ma. you know to be honest ñun àdduna bi léegi nuñ gëmante wutee dafa really sad nañ wax yi fi ñàkk a sax ñàkk a is sad. because nit ñi xam naa dañ dee fen torop moo tax nit ñi su la nit waxee dëgg sax doo ko gëm te lii is very sad dalee ko si man dama dee gëm nit waaye ba tey xam naa ñàkk a gëm nit saka góor yi moom góor yi laa gën a ñàkk a gëm sax léegi te this is really bad I know I just have to tell you the truth ooh A for Kine I think I was saying A for Kine I can't even remember <laughs> Is it A for kidney and B for I think it's A for kidney I said to you last time. Ah, what was I saying? ñàkk gëmante bu nekk nii ñàkk gëmante bi dafa daw yaram. suma internet bi léegi mu dem train bi dugg na underground xaw ma underground xaw nii nag nu koy ragalee surtout ci train bi duggee si ron suuf si nii ah man de tubaab yi la dem man lii ñeme ma ko de laay la la génn génn na what was ah, ñàkk xulwaat yi bi na si àddina si fa daw yaram suñ gune yi xam suñ magee seen àdduna nu muy mel waaw parce que ñàkk xulwaat yi bi mu ngi gën a yokk ñun xulootuñ kenn ñun xulootuñ kenn kenn sa ka ñoom ni ku ñuul yi sa ka ñun Gambia ak Sénégal xulootuñ kenn kenn kenn kenn kenn kenn kenn lu nit wax ñu ne évidence lu nit wax duñ ko gëm lu nit wax duñ ko gëm sama internet baa ngi lànk de internet baa ngi lànk xaaral ma de sama xel bi man wallaay sedd ba bëgg dee man ngi si liggéeykaay bi fii ak fa benn góori tubaab boo ne nu bone bu gudd ni ko fii laa fii laa ne gis ngeen ko Hi, can I get anything? Is uh, no, sorry. Today we didn't, we gluten-free stuff today. Fii laa di liggéey, fii laa jaay. si Christmas makket bi ak sedd sedd dana ma rey de léegi nag góor gu bon googu noonu benn fa xam benn góor gu xane fële moo ne na le xarawoon leen moo taxawee na le ka taxaw borom bopp ba ni ganaar na le du ki taxaw si kanam nii de ka sa gannaawam fa bon de bu gudd nit ko ñuul man lay bañ a gis fii de man de maa ngi ni sedd bay waaj a dee gis ngeen ndox mu tàng mën nga ba kool ah. kool kool kool kool sedd bay waaj a dee man liggéey bi la waaye friday rek mu jeex friday bu ñëw nii mooy last friday balaa christmas um, su ko defee dafay jeex bot ya ak sedd fii de laa lii laay jaay de jigéen bi nag lu mu mën si béeg maa ngi jaay tuuti de yii yëpp jaay naa ko fii tam si kaw yëpp jaay naa ko fii tam jaay naa xaaf bi fii tam jaay naa xaaf bi fii jaay naa fi ñet xaw ma ñeent ak yii nii ak tamit jaay naa xaaf bi so fii tam jaay naa fi ñaar xaw ma ñett fii jaay naa fi ñaar xaw ma ñett foog naa ñett la ñett o ñeent so bi moom jaayaguma si dara ak bi yooyu laa jaayagut bi itam jaay naa si ñett so but yeah fii laa nekk fii laa doon ñëw ba ma leen wax ne dama léet fii la waaye ak a sedd si mbedd mi la de gis ngeen ko Christmas market la nit ñëpp ngi nii di jaay waaye benn góor tubaab suma gannaaw fële ak a bañ bañ nit ku ñuul kële kay jaay mburu ma nële billahi wallahi tallahi kay jaay mburu ma nële ni mu ki dendeeg man nii lem lay jaay lemam gaane noonu ka ca gannaawam nële mooy jaay mburu ki sol mbaxanaam Christmas mi noonu du moom de ko ku baax la fa ma jëndal café sax may ma ko ku baax la daal fa ma may lem sax last week de du last week last week ñëw ma de week after ka ca gannaawam nële borom bopp ganaar bële fa bañ nit ku ñuul ta bon ba bugga dee bu gur suma mbir dara waaw waaye costume la di fii kay waaye di rek kay jënd benn nit ñu dëkk bi dafa am nit ku ñu ñaari nit ku ñu de romb nañ fi moo fi taxawee tey suba ba tey ñaari nikk ñu la fi romb te fii mooy seen centre bi de fii mooy seen siti centre bi dëkk bi moo ko Cocody waaye dëkk dëkk tubaab bi neen la ko bon kaa ni na kële mooy ko bon ku bañ nit ku ki ma leen di wax kële li ci moom billahi kii moo bon fa bona bona bon bañ di ko waaja suuli moo taxaw noonu di moo taxaw di tux noonu xam nga ni ma bañee laa ila su keneen ki di dimbale sax ki dendeeg moom daf ma dee dimbalee ka you jos baax ba bugg a dee waaye ngay gis nu muy ngëññi ngëññee man de kii jaaxal na wa tubaab yu bon yooyu dëgg ci la bokk waaye buñ koy suuli it mu gis ma fi de buñ koy suuli it mu gis ma ci seen réew mi de maa ngi nii sedd bañ dema waaja suuli suñ tent yi de foog pink moo tax mu pinkal suma yaram bi yëpp what the suma yaram yëpp a ngi pink ndik pink tent yi la sum lii fii de laane tey rek lañ may suuli ten pound na wa dee lañ may fay waaye danañ ma suuli ten pound yi ci sedde bi le tey nag maa sant yàlla sax de sedde wut de fuuya ma tax di wax lii fa sedde nii li xaajuta sedde nii de xaajuta sedde yii de nim neexee jigéen bi lim mënee a béeg Monica xëy jigéeni américaine bi le lim mënee a béeg black américaine la de waaye beeg rek la man bagage sam yi num neexe bii nag moom dafa xam lifin nu mu tuddati orange orange chocolate cupcake bii is everything ak bii nii bii nii tamit is everything nu mu tuddati sax balee nee le moo tudd bii bii moo tudd seen tudd yi tee rek lañ may suuli nag bii moom carrot cake la bii honeycomb bii moom nu tudd bii mooy euh, donut jaam donut bii buub dee laay daw ndax turam yi ma ko fàtte buub nu mu tuddati sax tur waan sa kanam fële de maa tayale wër wiire di ko gis foog naa mu ngi si taxawal ma seet mu si këyit gi fii de waaye duma mën a xàmmee ban la yépp la ma bindal seen tur fii apple pie brownie yeah mooy apple pie brownie moo ne nii three pound lay jar nag waaw three pound three pound mooy bii brownie three pound lay jar ñu duñ cala calaa de yii two pound la cupcake bi orange ak lemon cupcake two pound yii mooy one pound fifty fii bii nag is everything mint bii oh tamit mint la fii daal jigéen bi li muy béeg ak a neex waaye nag sedd bi mooy problème bi te jigéen bi dafa bëgg may liggéey si bitigam bi dafa am fuy bitig dafa am fuy café dafa bëgg after Christmas may liggéey si café bi waaye fa sori fii soo fi ñëw li ngay fay tireen non ngay teel a jóg ndax palaas bi fa sori su bala nga egg si kër gi mu guddi so jigéen bi su ma xëyee customer dafa like sama mbir torop waaye dama mën a nekk di liggéey moom dafa sori so damay just xam beneen liggéey in Edinburgh you know part time so loolu rek laa leen bëggoon woon maa ngi ñëw dem sedd ma taxaw nii di waaj dee laa leen bëggoon a woon gis sedd bi si digg mbedd mi de laa taxaw di jaay hey aka aka yi ñoo neex hey aka monika mën a béek taxaw leen ma taxaw leen ma defar suma taabal bi léegi nag si su boobu ma ñëwee mu ne ma amee di you want anything you can have anything you want bii Christmas cake la ma ne ko he ma ne ko may diet ma ne ko man duma lekk fekk benn waxtu jotul mu ne ma ah ma ne ko waaw si laa dem wuti ndox mu tàng di ko naan mu tàngam neen mi from Costa waaye mënuma xaara benn waxtu de mu toogee ba ah, fukki waxtu ak ñaar a genn wàll si laa xam si sample yi sample yaa ngi nii sample yi lu la neex nga lekk firi mooy sample boobu sow si laa jël si sampuli tuuti naan ko ak suma coffee bi loolu laa lekkoon right now moom ndox bu tàng kese lay naan again because fas sedde fas sedde bañ dama waaj a suuli soo dama dem Costa Costa baa nga ne la soriwut suma demee ne leen ndox bu tàng xëppëttaloo bitim réew lii de la nit ñiy deexal pour ñëw fii bitim réew ni mu naqadee liggéey boo fi mënti xam nag fa naqadee fii xamul liggéey moo fi liggéeyut moo tax yéen ñi wax naa Ami Diop dangay nekk di wax Facebook dooy liggéey xamul leen li ma dajut fii wala lu tax xat yi ma ne ci Facebook bi ba ba fii noppali ko mais na ma doon jël break de te léegi break bi jeex sax ñu suuleeti ma also Facebook bi moo ko commencé dafa tombeel maa ngi liggéey déedéet dafa tombeel maa ngi tuxu ma naan liggéey dafa tombeel maa ngi tuxu nekk si temporary accommodation so because maa ngi nekk si temporary bi te xaw ma woon fan lay xam permanent address ma doom yi ma war leen a move school stress boobu noonu and stuff dama doon xaar ba move ba settle soog am beneen beneen liggéey waaye nekk ne dama dee toog xat yi yëpp de mukk liggéey naa fi si biscuit factory fu ñuy paagee biskit yi liggéey naa fa liggéey naa fi si nursing home di sang mère yi di leen xee di leen ñanda di leen ka ñanda liggéey naa fi si loolu liggéey naa fi KFC liggéey naa fi Burger King liggéey naa fi si restaurant araw bàyyi lee xam na jigéen buy taxaw na la di xool xam naa fa bëgg ñëw man la gis téléphone ba si kanam